salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey la dimanche 21 février 2021 waaw 21 février 2021 ñoo ngi ci saison 4 partie 2 épisode 11 alors comme ni ngeen ko gisee ci partie 2 bi dañuy waxtaan ci organisation yi nga xamante ni mooy am ci biir entreprise bi pour que ñu mën a defar ay application ay logiciel ci nu mu gën a baaxee alors suñu waxee euh, logiciel bu baax nag suñu waxee nu mu gën a baaxee dañuy xalaat qualité dañuy xalaat gaawaay bi dañuy xalaat aussi euh, lépp lu jëm ci wàllu coût yi dépenses yi naka lañ ko mën a wàññee ak yeneen yu demee noonu alors loolu moo tax nag ci premier épisode partie 2 bi ñu waxtaan ci les méthodes agiles àndoon ci ak Mouhamadou Dramé ñu ngi koy saluer de passage mën ngeen déglu épisode boobu noonu ci euh, bépp plateforme podcast bu existé maanaam Apple podcast Google podcast Spotify ak yeneen ak yeneen wala ngeen topp ñu ci réseaux sociaux aussi di ngeen gis lien yi nga xamante ni ñu ngi koy partagé pour que ngeen mën a déglu épisode yooyu noonu ñu jot a def euh, voilà normalement alors épisode tey bi nag dañoo fas yéene waxtaanee lu ñuy wax DevOps lan mooy DevOps fan la concept DevOps jógee lan mooy njëriñu DevOps ci entreprise bi naka lay doxee mais aussi yan jumtukaay la ñuy utiliser avec DevOps. alors pour waxtaan boobu yëpp nag dañu si ànd ak suñu invité tey bi maanaam Gora Faye analyste cloud la mais aussi moom moo nekk coordonnateur communauté Telenet alors Gora ziar nañu la. Euh, asalaamaaleykum Serigne Ibrahima ñu ngi lay ziar te di la jaajëfal ci invitation bi. ah bu ma wax Serigne nag moom du ma sori naa Serigne torop sax. quoi non xam naa toog Serigne instant sama jàmm nga quoi donc <laughs> amul benn souci quoi. moom tukulóor bi moo invité séeréer bi quoi. non góoro góoro bul ma ñàkkantu bul ma ñàkkantu bul ma ñàkkantu góoro damay wax ñëpp ne séeréer nga tey sa buur moom moo la dalal ci émission bi. ah non mais non mais je yaa invité nañ la jox teraanga boobu rek amul benn ah problème. non mais dama lay nettali sax benn affaire c'est-à-dire man. Mhm. Mhm. Euh, c'est bizarre mais dama bëri xaritu séeréer pratiquement sama plus de la moitié sama xarit yëpp ay séeréer la. te dañoo bëgg mburu nag. alors li ma lay nettali ci affaire boobu mooy que ne. Ah. bi ma bi ma nekkee université di def formation man ak sama yenn xarit sama ñaari xarit ñoo dëkkoon ñu dëkkoon Yoff maanaam Jean Noël ah. ak Demba. je eh. me très bien comme amuñ noonu xaalis bu bëri chaque jour bu ñu xëyee rek ah Jean Noël sax damay préciser séeréer bu mag la voilà comme amuñ noonu xaalis bu bëri <laughs> chaque jour dañuy jënd benn dañuy jënd benn non kilo pain après xaaj mhm. ko ñett ndekkee ko mais noo mënti def Jean Noël moom genn wàll bi da koy lekk genn wàll bi lay lekk bàyyi ñu benn genn bi xam naa dafa xiifoon rek xam naa dafa xiifoon mais ko séeréer loolu chaque jour aussi noonu lay def. ah macha allah kay ma c'est c'est c'est passionnant et marrant. non dañoo bëgg mu aussi xaaral ma weer weer la rek ah démb aussi ma lay wax ne leen indiwaayal kaas café nga ne ma bul fàtte pain. <laughs> non bàyyil bàyyil li ma weer quoi mais garaawul. <laughs> non waaw mais gis nga. incha allah dinaa fay quoi amul benn souci. ok mais quand même kontaan naa trop ci ni nga répondre su suñu invitation bi. dañu ko wax rek directement nga nga d'accord franchement maa ngi lay remercier bu baax quoi ci loolu. ci franchement ñoo la gën a kontaan ndax rafetlu nañ bu baax baax liggéey bi ngay def ci ci communauté bi nga jiite ak aussi li ngay participer ci évolution IT au Sénégal. merci merci beaucoup merci beaucoup alors Gora pare nga pour ñu waxtaan directement ci DevOps. waaw waaw fas yéene niñ cee joxe xam-xam bi ñu jot a am as tuut incha allah. alors c'est bon ayca ñu dem directement kon ci suñu sujet sujet tey bi maanaam DevOps la magie de l'automatisation alors ci entreprise informatique yi pour defar ay application wala ay logiciel ak yu demee noonu ay site web ak yu demee noonu dafa am ay yoon yoo xamante ni ci lañu war a jaar benn par benn alors war nañu xalaat euh, application bi naka la war a tëddee après ñu choisir ay technologie commencer développement bi après boolante partie yu ndaw yi nga xamante ni moom la ñu développé boolante ko mu nekk benn def ay test pour xool ndax est-ce que li ñu def baax na wala déet après jébbal ko ki nga xamante ni moom moo ko war a jëfandikoo ñooñu aussi war a utiliser application bi dañ koy utiliser bu baax xool ndax am na ay jafe-jafe su ci amee ay jafe-jafe ñu euh, équipe yi ñëwaat defaraat ba noonu la ñuy def ba am application bu baax a baax alors liggéey boobu yëpp nag ay nit ñoo ko seex ba pare dañ leen répartir ci ay équipe mën nañu aussi ràññee lu ci mel ni développeurs yi déjà xam ngeen ko développeurs ak ñi nga xamante ni ñooy gérer lépp lu jëm ci wàllu infrastructure maanaam serveurs yi de base de données yeeg ak yeneen jumtukaay yu demee noonu alors comme dañu wax sànq nag équipe des fois du ñàkk mu am ay jafe-jafe wala ay incompréhension ci seen biir ba tardel sax liggéey bi alors loolu moo tax nag tey ñu war a waxtaanee la philosophie wala sax la méthodologie wala sax aussi l'approche DevOps alors Gora lan mooy DevOps ak fan la concept boobu noonu jógee. ah Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci choix sujet bi ak ci choix concept bi ak niñ ko fas ne waxtaanee incha allah léegi comme li nga wax rek dafay baax ñu def historique gu DevOps tuuti ndax dina permettre ñu ñuy déglu ñu xam DevOps fan la soqikoo ndax ëllëg ñu mën a mën a répondre question boobu noonu. ok nag bu amee dañ ciy sant ñaar ba ñetti nit mais mën nañoo yem ci ñaar ñi. Mm-hmm. kenn ku tudd Mm-hmm. ak kenn koo xamante ni ñu ngi koy wax Andro Chauffeur 2007 Patrick Debois moo nekkoon administrateur système consultant ci gouvernement Belgique mu nekk fee ci dëkk bu bu Belgique mm-hmm. te moom moo géré woon migration des données yi mais à chaque fois la doon am problème comme li nga wax bi ngay introduire mm-hmm. ay problème yoo xamante ni entre équipe bu développeur la woon ak équipe bu opérationnel yi ñoom la ñuy wax administrateur système yi léegi problème am la woon dafa doon xool moom nan lay fexe ba ñaari équipe yooyu di mën a communiquer seen biir boobu problème nag sonaloon na ko muy xool ban solution la war a mën a trouver. en 2008 ma juumul en août 2008 ci la tase ak Andrew Schaffer ci benn conférence boo xam te mu ngi amoon fële na le Toronto ñoom ñaar bi ñu gisee waxtaan. conférence boobu sax ñu ngi si doon wax ci agile bi nga commencé. Mhm. ci la ñu benn groupe boo xam te ni mu ngi tuddoon agile système administration pour xool nan la ñuy fexe ba opération yi ñi ñi nekk ñi nga xamante ne ay dévo ay développeur lañ ak ñi nga xamante ni ay opérationnel lañ la nan la ñuy def bay déggoo di waxtaan pour mën a liggéey jëmale seen kanam ki projet yi ñuy def ak tout ça. ci loolu nag bi mu amee 2009 benn conférence boo xamante ni John ak Paul amoon ñoo ko organiser woon pour présenter retour d'expérience bu ñu doon defoon entre coopération DevOps yi dévo dev yi ak mhm. opérationnel yi. Mhm. boobu nag Patrick mënul woon assister boobu. boobu conférence ci la bind ci Twitter wax ka ni ko assister. Mhm. ci loolu nag la ko benn waaye tontu ku tudd Paul Nasrat ni ko est-ce que doo organiser sa benn événement Belgique. Mhm. moom nag bi mu ci xalaatee. Mhm. le 30 octobre 2009 bu ma juumul ci la organiser moom Bassam. mais événement boobu nag dafa réussiroon. mais bi mu réussiree moom dafa gisoon que ni tur bi mu jëloon moom ak Andro dafa xawoon a gudd ndax agile. administration system lañ jëloon comme tur. mais léegi nag moom mu wàññi tur bi. journée bi mu tuddee ko DevOps Day léegi journée bi nag bi mu tuddee DevOps Day mhm. léegi nag xam nga rek Twitter liñ naan magie Twitter ak tout ça mhm. hashtag DevOps nag ñu di ko utiliser ba hashtag bi am doole tout ça ba mouvement DevOps bi am ci n'est-ce pas loolu nag moo waral ñuy wax léegi mouvement DevOps à cause hashtag boo xamante ni réussir woon na bu baax a baax oh, ndax dañ ko doon utiliser Twitter lu bëree oh, bëri bëri bëri ci nag la mouvement bi commencé structuré Mhm. yu gars yi di développé am mhm. tamit ñoo xamante ni comme que adopté woon nañ concept de DevOps di mhm. commencé nag di développé des bonnes pratiques yoo xamante ni nañ ko partagé ak nit ñi ba entreprise yi ci loolu noonu loolu nag moo nekk historique bi DevOps de manière bu gàtt quoi bala maa ñëw ci DevOps nag réellement lan la ok j'espère que mën naa jàll ci loolu wala waaw bien sûr mën nga dem ci expliquer ñu lan mooy DevOps directement ok ok donc comme j'espère que sax yow introduire nga ko macha allah mhm. sànq dafa su mhm. lan la lan lay wundu ci mhm. ci ci anam bu leer mais dañuy njëkkee ci baat bi baat bi rek day wundu lu bëri c'est-à-dire que day wane lu bëri comme ni nga ko waxee DevOps dafa am ñaari affaire yu ko yu ko boole muy dev ak ops dev mu nekk développement ops nekk opérationnel ñooñu la ñuy woowee les gens qui sont loolu ñooy woowee équipe yi nga xam te ne mooy équipe bu production yi ñooñu la mais DevOps ci boppam lan ah. lay tekki réellement. lu am solo la. Mm-hmm. bala ñoo dugg ci DevOps dañoo war a xam ne DevOps nekkul langage de programmation. Mm-hmm. ñëpp xam ko. exactement DevOps nekkul une technologie. Mm-hmm. donc mu leer suñ bopp donc DevOps lan la DevOps c'est juste un ensemble d'idées et de pratique boo xamante ni. day permetre comme ni nga ko waxee au début mm-hmm. équipe bu développeur yi mm-hmm. ak équipe bu production yi mm-hmm. mën a collaborer seen biir mën a waxtaan seen biir ba man di produire ay produits yoo xam te ni day gaaw day efficace te baax te du indi yenn jafe-jafe diggante ñoom ñoom ñaari équipe yi loolu nag moo nekk développe loolu nag moo nekk DevOps de manière très synthétique quoi ok ok alors je pense que leer na nañ tu vois ah, voilà ah, ah, ni nga ko expliquer c'est très très très clair je pense que même sama rakk bu am dix ans sax dina mën a comprendre exactement lan mooy DevOps quoi ça c'est sûr alors mhm. beneen fi ma waroon bëggoon a rebondir mooy que ne euh, je sais que euh, avant ñuy wax affaire DevOps am na ay entreprises yoo xamante ni dañ daan defar ay logiciels tu vois ak seen ay équipes yu bari mhm. mhm. am na ñun ko gérer peut-être tu vois alors li ma bëgg noo xam foofu mooy sans DevOps avant ñuy wax waxu DevOps naka la entreprise yi doon liggéeyee ak lan moo tax ñu war a utiliser DevOps pour gën a efficace. ok euh, question bi nga posé am na solo bu baax a baax Elib wala mhm. Ibrahima. Ouais. premièrement dañu war a xam que ni DevOps dafa ñëw. Mhm. pour régler benn problème mu nekk dualité bi amoon entre développeurs yi. Mhm. ak opérationnels yi. wala équipe bu développeurs yi wala équipe bu production yi pour mu gën a leer ci bopp nit loolu noonu la ñun pour régler mais avant DevOps lan moo amoon. comme damay jël benn exemple ma tuddee développeurs yi. Mhm. ñu nekk toggukat. ok ma jël opérationnels yi ñoom ñoo nekk ñi nga xam te ni ñooy yàq. Mhm. taajal nit ñi ñu lekk nit ñi ñoo nekk clients yi. ok imagine toi toggukat bi togg ceebam ba pare ceebu mhm. jënam. teg ceebu jën bi. jël légumes yi teg léegi yàqkat bi ñëw. waxul dara yàqkat bi yàqkat bi moom xamul luy ceebu ñoon xamul dara mu jël légumes yi teg ko jël ceeb bi xëpp ci kaw dem taajal ko clients yi. clients yi dinañ waaw mais lii lan la. mën naa indi ay jiixi jaaxa. Mhm. ki nga xam te ni moo yàq bu ko neexee mu ni mankat kat waxuñu ma nan laa war a yàqee. Mhm. loolu lan moo ko waral manque de communication entre ki togg. Mhm. ak ki nga xam te ni mooy yàq ki togg bu nekkoon ceebu jën kat da ngay jël ceeb bi nga teg ko. jël jën teg ko Mhm. placer xooñ bi fii placer bëgëj bi fii oh. placer tout sax oh. bu ko tegalee nit ñi dinañ mën a comprendre. Oh, affaire de couleur nag laay def nii pour nit ñi comprendre quoi. <laughs> ah affaire de couleur def pour nit ñi comprendre tuuti loolu la ce yaa gis manque de communication bi am ci ñoom ñaar. te presque ñoom ñaar il faut que ñu boole seen doole. pour mhm. mën a tegal clients yi plaatu ceebu jën bu rafet. bu mhm. dee bu bu am bu am bu bu bu jox envie ni ñi lekk ak tout ça. loolu nag moo amoon ci développeurs yi. Mm-hmm. ak opérationnel yi développeur yi dañ doon développé produit ba pare ak code bi mm-hmm. def seen test jox ko opérationnel yi buñ ko defee ñoom tamit buñ ko mettre en production mm-hmm. mën na am ay jafe-jafe ci feeñ client bi remonté ko client bi bañ a kontaan kon équipe de production dañ daan wax naan yéen ci boppam li ngeen développé baaxul ak tout ça or que peut-être loolu mën naa bañ a nekk ndax environnement bi ñu defaree bi développeur doon liggéey mën naa bañ a bokk bi ñu doon liggéey ce qui fait que mm-hmm. noonu lañ doon liggéey bu njëkk ce qui fait que dafa doon am ay retards yu am vu que développeurs yi dañ doon def time to market mm-hmm. dañ doon bëgg a développer seen produit mm-hmm. ci ci ci anam bu gën a gaaw pour mën ko livrer nga xam te nañ mën a jàllaat ci leneen defaat version yi yu baax mais boobu problème nag da doon am chaque jour ci ñoom ñi ah ku nekk naan sa moroom yaa waral lii yaa waral lii yaa waral yaa waral lii léegi nag manque de communication doon am mur bi nga xamante ni moo doon séparer développeurs yi ak opérationnel nag n'est-ce loolu nag la si ñëw toj ko léegi nag jéem a fexe ñëw mhm. proposer su ay outils mhm. proposer ay pratiques yoo xamante ni léegi ñoom ñaar mhm. dañu mën a nañ mën a liggéey liggéeyandoo ensemble di waxtaan te ci waxtaan bi aussi nag nañ mën nag di gindante ba kere ñuy produire benn solution boo xam ne dina gaaw te efficace te client bi dina ci kontaan loolu noonu la woon ba keroog ñuy teg benn ceeb boo xamante ni carotte bi dañ xam fi ñu koy placé ñaam bi suppame bi ba orne ko ba mu rafet ah même bu ceeb bi neexul sax da ngay am envie lekk ko. ça c'est sûr da am envie lekk da <laughs> loolu loolu moom la non mais ni nga expliquer affaire bi c'est hyper clair xam naa maa ngi koy répété waat encore tu vois mais euh, mhm. déjà bi demagul fenn mais déjà je kontaan ba pare parce que xam naa ne les gens ngi dinañ comprendre exactement li ñuy wax quoi. alors mm. alors mm-hmm. bu ñu weesoo loolu c'est-à-dire euh, ci épisode boo xoolee bi ñu weesu tudd nga ko léegi waxtaanoon nañu ci affaire méthodologie agile. tu vois waxtaan nañ ci avec. Euh, mm-hmm. Mansour Dramé. maanaam na yan méthode maanaam ay méthodes yi nga xamante ni moo ñu permettre ñu mën a liggéey mën a gérer ay projet alors li ma bëgg noo xam foofu noonu mm-hmm. mooy ban lien moo am entre méthodologie agile ak DevOps. ok loolu loolu lu am importance nit ñu teel ko xam. Mm-hmm. parce que man des fois damay bëgg a joxe def teel teel nit ñi xam li xew après ma doog a expliquer. premièrement. méthode agile bu amul DevOps du am ñu teel ko xam. ok loolu c'est la base. donc léegi bala ñoo wax méthode agile. Mhm. dinaa lay wax ne sax lu tax ñuy wax méthode agile bay wax DevOps. xam nga bu njëkk cycle en V moo amoon méthodologie yi ñu doon utiliser. Mhm. yooyu xam nga ay xeetu manière liggéey la woon yoo xam te dañ doon wax nit ki. yaa ngi may dégg dañ wax nit ki. ok dañ doon wax nit ki par exemple boo bëggee liggéey bu daaw mhm. liggéey bu efficace boo utiliser méthode bi méthode mhm. bi méthode bi li ngay def dina gaaw dina am efficacité cycle en V moo njëkkoon a am nga xamante ni da doon jël projet bi mu séparer ko mhm. en plusieurs phases noonu la doon def mais méthode boobu dafa amoon problème parce que méthode boobu noonu dafa amoon problème ñu naan problème linéaire c'est-à-dire que mhm. étape bii nii bala ngaa dem ci beneen étape il faut que étape bu njëkk bi nga pare ko boo ko parewul doo mën a def benn étape te des boo defee benn étape ba pare jàll ko pour nga tëppaat day am problème donc ñu waroon a trouver donc benn solution boo xamante ni mhm. benn méthode liggéey boo xamante ni na permettre nit ki mhm. mu mën a am benn flexibilité mhm. ak benn interaction ci ci phase projet de développement yi lool noonu la mais pour nag loolu ñu am ko n'est-ce pas ci lañ créer méthode agile bii nii nga dégg ñuy wax donc ci la méthode agile nag soqi ko léegi moom tamit nekk xamante ni comme méthode cycle en V la mais bokkuñu parce que hmm. méthode bii nii lu muy wax moom day jël projet bi ci boppam mu def ko ay daggat daggat yu ndaw. Hmm. loolu la ñuy woowee ay fonctionnalité hmm. bu ko jëlee ñu ñu def ko ci li ñuy def woowee de fois ay project backlog. nga xam te mën naa jël da ngay jël par boo jëlee sa xar. miss yi moo nekk sa projet. misu yi xar danga nga ne dama bëgg a dama bëgg a togg xar muñ lakk quoi léegi nga ñëw nga misu sa nga bu la neexee. nga ñëw nga misiw xar bi yëpp dina la indil coono ndax il faut nga wut foo ko misiwee espace bi temps bi muy jël day bëri imagine toi nag yow nga ni man ma dibi ko ñëw daggat xaar bi da nga am espace boo ko lii mën nga koy dugg ci cim defaraat ko tout ça donc ce qui fekke que nag léegi moom dafa ñëw ni léegi dañuy daggate projet yi ci boppam léegi projet yi ñu utiliser ay backlog def ko fa mu nekk ay fonctionnalité léegi nga xamante ni dañ naan tey ci lii laay liggéey dinaa ci liggéey durant deux à quatre bu paree ñu jëlaat beneen liggéey ci liggéey ci mën nañ liggéey ci dara sottiwul sax ñu ñu bàyyi ko fa jëlaat beneen liggéey fa ce qui fait que di nga mën a def ay aller retour ci tâche ak ci fonctionnalité yi pour mën ci liggéey yaa gis itération bi am nag entre fonctionnalité yi ak tâche yi bi méthode agile indi nag loolu nag moo waral ñu soxla woon benn outil boo xamante ni dina mën a permettre ñu def ay intégration ak ay développement continu parce que avec ndax ndax ak méthode agile ci boppam doon mën liggéey ci benn fonctionnalité xool ba xam fonctionnalité bi baax na testé ko def testé ko def après ñu doog koo joxe ce qui fait que mooy flexibilité boobu ak fonction itérative boobu ci am moo taxoon ñu soxla intégration ak déploiement continu te bu ñu waxee déploiement continue mhm. wax intégration dañuy mhm. xalaat directement mhm. DevOps DevOps quoi yaa ce qui fait que oui oui parce que bu ñuy wax DevOps rek dañuy wax waaw alors vas-y vas uh-huh, demal demal waaw nga xam bu ñuy wax intégration continue rek ak développement continu rek dañuy xalaat DevOps te loolu noonu n'est-ce mu ngi ci biir loolu nga xam te loolu noonu ci biir mu ci biir méthode agile c'est góor pour résumer donc mënuñu wax intégration et déploiement continu projet agile te mënuñu wax intégration continue et déploiement continu te waxuñu DevOps donc loolu moo nekk relation bi DevOps méthode agile amul woon DevOps du am. du ok ok ça ça, wow. ça parce que boo xoolee chaîne la quoi chaîne la agile bi moo njëkk après DevOps bi ñëw tënku ci quoi ok. ok waaw loolu loolu alors alors comme ni ñu ko waxee woon sànq aussi je pense que ni am na loo si cof sax déjà mais comme ni ñu ko waxee woon sànq pour defar ay application ah, c'est-à-dire dafa am ay yoon yoo xamante ni ci leen war a jaar tu vois. alors tàmbalee ko ci xalaat bi maanaam mm-hmm. conception bi mm-hmm. développement bi saytu qualité bi def livraison livraison produit bi tu vois maanaam li ñuy wax ay cycle de vie d'une application wala sax cycle de développement maanaam yoon yi mu war a jaar mm-hmm. alors lan nga ñu mën a wax exactement ci yoon yooyu nga xamante ne ci lañ war a jaarale application bi euh, ci lañ war a jaarale application bi ba nga xamante ni day mën a baax quoi ok bon bu fekkee sa question dafa ñëw ci cycle de vie loolu dafa mel ni bon euh, kon waxaguma ko ci DevOps cycle de vie classique bi laay wax. muy cycle de wax ni définition des objectifs nga xamante ni mooy lan mooy mooy bu njëkk bi il faut nga nga xalaat sa projet bu bu paree lan la war a mel. muy définition des objectifs léegi nga xalaat tamit ci analyse des besoins ak faisabilité c'est-à-dire est-ce que sa projet bi mën naa nekk nga xool produits produit existant yi lan moo nekk ci marché bi est-ce que am na loo xamante ni mel na ni li nga bëgg a def ak yooyu noonu bala ngaa jàll ci conception yi nga xamante ni foofu na ngay waxe que ni man kat lii la bëgg mu am sama produit lii laa ci bëgg mu am lii laa ci bëgg am et cetera et cetera ba fi ngay ñëwee ci liñ naan le nga xamante ni foofu nag ngay xaatime ngay defee programmation yi par exemple ci programmation yi nga codé sa fonctionnalité sa fonctionnalité yi nga définir woon sa conception ba fi ngay ñëwee ci test ba ñëw sa déploiement ak sa maintenance loolu nag moo nekkoon cycle de vie un logiciel mais bu fekkee nag sa question dafa bëgg a wax loolu nag nan lañ koy defee ci DevOps. exactement voilà c'est ça exactement. waa kay nag léegi nag bu fekkee nag ci DevOps ci boppam. Mhm. lenn lañu bala ñoo wax ci cycle de vie cycle de vie du changer premièrement ñu teel ko xam parce que à chaque fois di nga di nga di nga def sa conception projet di nga def analyse de besoin di nga def say tests di nga def say déploiement di nga def sa tout donc li am solo foofu day xaw a répondre benn question bu ñu bëri di poser mooy que acteurs yi intervenir ci DevOps ak pour yi am ci DevOps. voilà loolu moo nekkoon objectif benn question bi sax. mais demal vas-y waa waa waa waa loolu donc léegi processus yi. loolu lañu ñu war a comprendre mooy par exemple nit ki bu décider. Mhm. def DevOps mhm. lan. ak lan ak lan lay DevOps lan ak lan ak lan lay def bañ mën a tuddee que ne nit ki kat mu ngi def DevOps. ok loolu moo am solo. exactement loolu nag la ñuy woowee ay processus mooy par exemple li ngay def. Mm-hmm. pour ñu ni yow mii kat yaa ngi def DevOps. donc li ci njëkk mooy il faut que ñu am gestionnaire de code de source par exemple nit ki buy def DevOps li mu war a njëkk xalaat mooy am gestionnaire des codes de source lu tax parce que objectif bi mooy lan dañoo bëgg a ay nit ñu bari ñuy liggéey ci benn projet. ku nekk di indi sa xalaat mën nañ ko wax ay code par exemple ku nekk di côté ku nekk par exemple imagine toi yow Elib ak man ñuy liggéey ci benn projet yow des fois nga codé dugal des fois da ngay da ngay soxla nga indi sa xalaat ma indi sama xalaat ñu xool ba xam na ñu corriger ñu avancer tout ça mais ci niñ koy waxe ni ay code la gestionnaire de code bii nag n'est-ce moom moo nekk environnement bi nga xamante ni mooy recevoir nit ku nekk li mu liggéey foofu lañ koy xoolee testé ko xool ba xam nit ki code bi mu def baax na wala baaxalu tout ça donc nit ki bala moo def DevOps il faut que mu am gestionnaire de code source loolu nag mën naa ci joxe exemple bëri am na ay GitLab mhm. ñu koy dégg mhm. dégg nañu ay GitHub ak tout ça léegi loolu nag mooy première affaire bi njëkk a am léegi ñu doole ci lan nga relier ko ak lu ñuy tuddee intégration continue intégration continue ne sax moom mooy permettre mooy bépp modification bu am ci gestionnaire de code bi wala bépp code buñ dugal ci gestionnaire de code bi système de d' intégration continue boobu na ne sax moom mooy ñëw def vérification yi xool est ce que solution biñ dugal est ce que mu ngi compiler waa wala déet mais intégration continue boobu si boppam dafa am ay processus yu nekk ci biir li si njëkk wax naa la ko mooy build mooy par exemple il faut ñu xool liñ dugal est-ce que dina générer fichier binaire wala déet am na tamit loo xamante ni moom la ñuy woowee des tests par exemple parce que xam nga sànq wax naa la dañuy li njëkk ci processus mooy il faut que ñu am gestionnaire de code de source. exactement bu paree ñu relier ko ak lu ñu tuddee un système d'intégration continue. Mhm. mais gestion de système d'intégration continue boobu lan lay jariñ ak ak lu muy def moom day vérifier est-ce que nit ki modification bi mu def ci biir. Mhm. baax na wala baaxul c'est-à-dire est-ce mu dugal. dina yàq ci projet bi dara wala du si yàq projet bi dara wala dina ci indi benn affaire loolu noonu lay def te vérification boobu nag léegi nan la koy defee loolu la ñuy day def ay test dañuy njëkk a testé est-ce que code bii nii ñu dugal wala modification bii ñu defa dugal est-ce que dina mën a fonctionner ci beneen environnement bu bokkut ak ñu ko bëgg a yóbbu loolu la ñuy woowee les tests unitaires après mu amaat beneen test boo xam dañ ko war a def mu tudd les tests intégration boobu nag lan lay jariñ mooy que modification bi ñu dugal ci gestionnaire de code source bi wala code bi ñu ci ajouté ci boppam est-ce que est-ce que est-ce que ya est-ce que mu ngi méngoo na ak li li jot a existé ba pare c'est-à-dire que est-ce que est-ce que ça s'intègre correctement ci ensemble des solutions yi ñu codé ba pare donc loolu la wala est-ce que wàññiwul dara ci efficacité li ñu amoon. léegi nag après nag mu amaat beneen test bu test d'acceptation nga xamante ni moom mooy mm-hmm. permettre ne sax ñu xam est-ce que code bi mm-hmm. li ko taxoon a jóg mu ngi koy def par exemple boo waroon a côté que ni A plus un plus un égale deux sa code est-ce que mu ngi def un plus un égale deux loolu la ñu woowee test d'intégration après nag ñu defaat beneen test bu tudd test d'interface nga xamante ni nag moom mooy ñu xool n'est-ce pas affaire bi nañ lay réagir ci interface day eh, nekk gest dañoo war a dañoo war a am gestion de production nga xam te ni mooy permettre suñu liggéey yëpp ñu centraliser ko fa ñu am benn processus boo xam te ni moo nekk li ñuy tuddee CI bon CI mooy intégration continue nga xam moom mooy def vérification xool modification wala côté ñu ajouté est-ce que mu ngi dox waaw wala doxul après nag ci la ñu doog a ñëw nag léegi ñu def li ñu tuddee déploiement continu nga xamante ni loolu nag la équipe de production yi doon def

ci euh, ci ci ci ci ci ci cycle de vie bu ñuy defar application bi quoi tu vois alors. ok ok waaw. waaw question bi waaw fii moo question bu am solo la da ngay poser ci automatisation yi wala. alors alors dinañ ci yegg si après ah. dinañ ci yegg si après léegi si li ma bëgg noo ñëw mooy euh, par exemple. Euh, c'est-à-dire waxoon nañ ne alors comme ni ñu ko waxee woon sànq bu ñuy defar dañuy defar ay applications yi tu vois dafa am ay yoon yoo xamante ni dafay dafay jaar quoi tu vois. alors déjà yi wax nga ñu ba pare li nga xamante ni mën nañ ko automatiser ci benn partie bi quoi chargé compte euh, intégration continue bi tu vois ak déploiement am na aussi déploiement continu mais est-ce que mën nga ñu mhm. ñëwal tuuti ci déploiement continu bi aussi naka lay doxe tu vois pour que ñu mën a xam aussi foofu aussi yan processus la fa DevOps bi mën a automatiser. ok waaw bon euh, xam nga xam nga avant tout. Mhm. naa ñëw si déploiement continu mais bu fekkee automatisation rek ma ma ma wax bu fekkee automatisation rek lépp lañ mën a automatiser. par exemple mën nañoo automatiser CI bi mooy intégration continue bi ni muy demee yooyu mën nañ ko automatiser parce que automatiser lan la par exemple fexe rek ba nga xamante ni genre fexe ba mhm. euh, utilisation manuelle yi ñu koy limiter ba lépp fexe ba. am ay script yu koy def. waaw c'est-à-dire dañuy def dañuy def ay dañ koy def de telle sorte que. day doxal boppam te nit du ci intervenir quoi. waa kay waa kay nag te nit du ci inter te nit du ci intervenir. looloo tax n'est-ce pas en fait que automatisation bi CAI bi mën nañ ko automatiser en automatisant les tests ak les builds ak yëpp. aussi bu fekkee développement continu bi nag nest tamit loolu tamit mën nañ ko. automatisé mais dafa am solo sax li li li tax nga wax que ni c'est important ñu ñu may expliquer de développement continu ndax li tax développement continu ñi nga xam te ni tàmm nañ di développer ay application yu con yu com complexe xam nañ que ni déploiement moo gën a stressant fii nii si da ngaa war a ñëw def say test nga war a topp ay affaires di nga test lii test des fois mën nga fàtte yenn affaires yi. ce qui fait que boo wul dara normalement nga mettre sa application en production. Mhm. mën na indi ay problème après. ok en plus de sa mooy application yi ngay déployer des fois dañ koy bind ci ay langage de programmation yoo xam te bokkul te mën nga am sa application boo xam te ni en Java lañ ko def nga ñëw nga appliquer ci benn nga appliquer ci benn méthode de déploiement suba nga amaat beneen n'est-ce pas. tu vois ce qui fekk que à chaque fois tu es nga adapté wu par rapport ak langage bi ak tout ça. gis nga coono boobu bopp di am na sax mais imagine toi nag yow léegi nga créer benn solution boo xamante ni ci boppam daf lay permettre que application bu mu mën a doon yow sa yoon nekku ci gérer nga de telle façon que bu ñëwee rek dinañ ko mën a déployer de manière automatique ak tout ça de manière automatisée et tout ça donc tu vois ce qui fait que ci bi bu ñuy wax automatisation dafa am solo am solo am solo bu baax a baax a baax a baax. exactement si si si

su ma ñëwee par exemple ci entreprise bi par ma nekk ci département IT tu vois alors su fekkee dañuy def euh, am na dañuy def DevOps et tout ça dañuy def agile et tout sax am na aussi un DevOps bu fa nekk tu vois alors yan équipe la ñuy mën a gis la ñuy mën a ràññale foofu noonu parce que damay dégg des ñuy wax naan ñi moo nekk équipe déploiement équipe recette développeur yi fii alors yan équipe ñooy war a séq travail boobu noonu. ok ok yan équipe bon bu fekkee bu fekkee dañuy wax en matière d'équipe. Mm-hmm. ci boppam. Mhm. mën ñoo wax ci par exemple équipe yi lan lay constituer premièrement lan lañ soxla parce que boo xoolee processus yi rek nga gis que ni soxla nga koy def intégration soxla nga kuy def test unitaire soxla nga koy kuy def ay test d'acceptation ay test d'intégration soxla nga aussi kuy def euh, déploiement mën nga wax que ni loolu noonu ay équipe la mais de manière simple dangay ngay dégg ñu naan la soxla nañ ay développeurs soxla nañ ay testeurs soxla nañ ay ana ay ay ay mais question bi am importance poser question mooy lan équipe DevOps lan ak lan la war a am yan yan yan yan nu mu tudd sax yan compétence la war a am wala yan profil la war a am boobu question la nit ñi di war a poser wu premièrement par exemple mën nga am équipe boo amul profil yooyu noonu pour que nga am benn équipe DevOps bu baax na nu nekk problème des fois donc bu fekkee profil yi nag des fois la plupart dañ lay wax que ni fexeel ba am un responsable de projet DevOps koo xamante ni comprendre na DevOps ni muy doxee nga xamante ni dina mën na teg nit ñi à chaque fois ci yoon bi ci raay bi am koo xamante ni tamit moom la ñuy woowee des fois gestionnaire de projet agile des fois da ngay dégg ñu naan ay coach agile parce que ñoo ñooy expliquer nit ñi mhm. bon projet agile bi est ce que yéen ngi si ba léegi est ce que yéen a ngi gérer seen sprint yi est ce que yéen a ngi gérer yenn détails moo tax soxla nañ profil gestionnaire de projet agile ci équipe DevOps bu baax ok en plus de ça aussi soxla nañ ay développeurs. ak mhm. ay testeurs. exactement waa kay développeurs yi ak testeurs yi nag ñoom ñoo nekk la plupart ci ci ci partie saa yi CD bi. Mhm. ñoom ñoom ñoo nekk ci ci partie saa yi bi quoi intégration yi. parce que testeurs yi ñooy def test yi. développeurs yi ñoom ñooy ñe ñoo ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy développé code yi ba pare di ko intégré ci ci gestionnaire de code source aussi tamit soxla nañ. ki nga xamante ni moom la ñuy après des fois des fois dañ ne ay ay manager mooy ki nga xamante ni moom mooy chargé du déploiement am na ñu naan des fois mooy nekk équipe de production mais l' essentiel na nga am koo xamante ni mooy gérer mooy chargé du déploiement. ok ça pas en plus ça aussi soxla nga ingénieur en infrastructure. parce que bu ñu doon wax des ay affaire ay. ay orchestration ak yenn détails mm-hmm. il faut que mu am koo xam te ni comprendre na environnement yi mm-hmm. xam na ay outils xam na yenn détails yu bëree bëri mm-hmm. il faut nga am ko te aussi soxla nga un ingénieur en sécurité mais malheureusement quoi ci équipe yu bëree bëri yenn détails duñ ko comprendre yenn ak no yenn aussi tamit am na quelqu'un koo xamante ni nag bon mën na nekk un expert mën na nekk un ingénieur mais mhm. mu nekk une personne boo xamante ni am na ay capacité d'industrialisation c'est-à-dire que koo xamante ni mën na defar mën na def de l'automatisation cest a dire que mooy déploiement yi mën na ko automatiser quoi parce que am ay capacité d'automatisation ak nekk ku mën a déployer c'est pas bokkuñu quoi non non c'est pas c'est la même chose du benn ce qui que en résumé pour que mhm. ñu mën a am mhm. soxla nañ profil yi ma lim quoi ñooñu nag buñ ko amee am nañ lii bu baax a baax mais bu fekkee nag yenn équipe lañ soxla de manière général da ngay dégg ñu naan la mhm. soxla nañ un développeur mhm. soxla nañ ay testeur soxla nañ ay équipe de production ñu gérer ay déploiement mais pour nga waa ay intégrateur ak tout ça mais mais mais mais nag intégrateurs yi mën na nekk testeurs yi en fait parce que bu fekkee da nga automatiser ce cycle bi yëpp loolu loolu moo nekk parce que bu fekkee xam nga comme li ma la wax sa gestionnaire de sa gestionnaire de bi da nga koy imbriqué ak sa système d' intégration bi ce qui fait bu fekkee automatiser nga ko bépp changement bu am ci code source bi rek day déclencher automatiquement mécanisme bi permettre bi def test d' intégration yi mu commencé di appliquer mu commencé di appliquer phase mu commencé di appliquer phase d' intégration continue bu accepté wul boobu rek du prendre en compte modification bi am. modification comme ça que ça se passe des mais quand bu fekkee nag amul benn automatisation. Mhm. éléments yi soxla nga ko. Mhm. pour mën a. liggéey bu baax a baax ci DevOps. ok je vois fekkee li mu wax leer na. alors je pense que c'est très clair encore une fois alors léegi pour ñu tënk c'est-à-dire tënk déjà man dama koy woowee sax première partie déjà pour ñu tënk. Mhm. lan moo nekk d'une manière générale avantage yu approche DevOps ci entreprise IT d'une manière très générale quoi. waaw avantage yi waaw avantage yi moom bon bëri trop en fait parce que. bon bu fekkee documentation théorique yi dañ lay indil ay ay avantages yu bëri bëri mais avantage bi ci ëpp solo mooy lan dina gaawal liggéey bi ba nga xamante ni client bi dina jot produit am ci anam bu bu rafet bu yomb te du ànd ak jafe-jafe yu bëri te en plus de ça dina permettre ñu mën a régler problème yi directement parce que gisoo bu fekkee agile lay adopté imagine toi nekkul que ni da ngay liggéey ba projet bi jeex bu problème amee nga retourné waat en arrière non problème bu am dinañ ko régler avant ñu continuer ndax niñ ko structuré moo tax yooyu noonu ce qui fait que complexité yi doon am ci liggéey dootu si amati ak tout ça en plus de ça sa environnement d'exploitation bi nga xam te ni équipe de production bi moo am lay utiliser dina gën a stable parce que def nañ ay tests yu jaar yoon avant ñuy indi produit bi ci environnement de d'exploitation bi en plus de ça aussi dina permettre ñu ñu gën ñu gën faire la gestion Mm-hmm. des ressources mooy mm-hmm. outils yi ñuy ñu gën koo gérer bu man bu gën a optimal ak tout ça. mais de manière générale loolu loolu moo nekk avantage quoi alors moo avantage yi. alors je sais que ne alors je sais que ci entreprise yi. Euh, ñiy def mm-hmm. informatique war nañ gën a bàyyi seen xel ci euh, ci ci ci approche yu demee nii quoi parce que. déjà man ni ma koy mën a xoolee rek déjà mooy que ne y a deux équipes. les développeurs ak les ops tu vois. alors mm. à chaque fois soo jëlee ay équipe par exemple nit ñu bëri ñu war a travailler war a liggéey ci benn projet ci benn mbir. Mm-hmm. boo fexee ba seen diggante rattax rek tu vois. Uh-huh. dafay tax liggéey bi gën a efficace. alors su liggéey bi efficace da ngeen ni mën a atteindre seen objectif ah, euh, très rapidement su ngeen atteindre seen objectif très rapidement da ngeen ni livrer rapidement maanaam da ngeen ni jox client bi lim soxla rapidement soo leen client bi lim soxla rapidement. day leen fay rapidement day kontaan ngeen am xaalis wala seen activités yëpp di dox alors dañ ko xoolee foofu c'est-à-dire nañ fexe xool de telle sorte que ne day permettre entreprise bi gën a efficace waxuma développeurs yi sax de hmm. entreprise bi day permettre mu gën a efficace en chiffre d'affaires même parce que day livrer très rapidement clients yi aussi suñ amee problème di utiliser application bi suñ defee retour réactivité bi day gaaw dañuy mën a euh, générer waat beneen beneen version bu bees vite joxaat ko clients yi par exemple bu fekkee ne client bi benn banque la. Hmm. bu bi. mu xëy benn jour rek banque bi euh, application bi ne tak taxaw am problème tu su fekkee ne ñu ngi hmm. utiliser approche yu demee nii activité bi day gaaw tu et léegi client bi boo xamee ne day gaaw day gaaw voilà boo client bi boo xamee ne man dama ko séq xamante ni euh, bu problème amee vite ko mais bon voilà il te paye te voilà loo ko laaj mu jox la tu vois. alors ok c'est oui moo tax chaque fois sax ngay mhm. gis ñuy wax naan dafa am ay avantages yoo xam si ni. ay mhm. avantages commerciaux la. ak ay avantages techniques quoi. comme ni nga waxee commerciaux yi ci wàllum client yi ngay am ci xaalis bi nga ci gagné ak tout ça. technique mooy yombalal liggéey bi nga xam si ni mu ngi koy yombalal nit ñi. ak si symptomatisation yi rek yooyu yëpp ay avantages yu bëree bëri. te macha allah leer na bu baax baax. ay avantages alors alors léegi man mm. beneen laaj bi mu bëggoon a laaj te mu am solo c'est-à-dire démb keroog ba léegi man mi sax sama jëm bopp maa ngi nekk di ci réfléchir c'est-à-dire ban lien encore moo am entre DevOps ak le cloud. bon mën nga euh, <laughs> rapidement euh, wax ñu euh, lan mooy cloud rapidement mais je dis que ne cloud dinañ ci def benn épisode spécial boo xamante ni dinañ ci gën a xuus après quoi mais déjà mën nga ñu wax ban lien moo entre DevOps ak cloud expliquer ñu tuuti bon euh, kii mën na ko bañ a jar sax pour nit ñi comprendre parce que comme ni nga waxee cloud moom dafa nekk loo xamante ni mhm. li gars yi naan mooy bomb quoi ci bomb ci la bokk <laughs> waaw c'est sûr temps moom dafa xaw a xew waaw ndax provider yi na exact ak yooyu noonu mhm. mais bu fekkee dama ko bu fekkee damay bëgg expliquer cloud mën na jël temps bu de manière très ramassée mhm. cloud ak DevOps yi ñu seq. ok avant tout cloud actuellement rek pour yombal dafa am ay fournisseurs ñu tudd ay providers. ñoo xamante ni ci boppam comme Azure mën nañ ko ci wax mën nañ wax AWS mën nañ ci wax GCP muy Google Platform Cloud ak yeneen ak yeneen nest pas yooyu noonu am na mais yooyu ci boppam actuellement dañuy fournir ay services yu bëri bu ci mel ni nan la ñuy faire la gestion d'une machine virtuelle. ak nan la ñuy defee déploiement d'une application ak aussi nan la ñuy defee gérer aussi ay logiciel ak aussi nan la ñuy fexe aussi ba bay coder ay infrastructure ak aussi nan la ñuy liggéey ci IoT ak yaa gis ci ma la limal gis nga ci ay déploiement d' application gis nga ci ay gestion machine virtuelle te DevOps lan lañ waxoon mhm. dafay permettre gars yi liggéey mhm. ci anam boo xamante ni ci boppam mhm. dina leen yombal dañ mën a produire mën a def ay déploiement application yi gën yomb ak tout sax ok ce qui ci boppam léegi même fournisseur cloud ci boppam dañuy fournir ay services yoo xamante ni ils utilisent des API dañuy utiliser aussi ay ligne de commande mën nañoo utiliser interface web mais utilisation API ak ligne de commande ci boppam day permettre ci boppam en fait mhm. l'utilisation des ressources en utilisant les chaînes d'intégration par exemple booy def CI/CD ak yooyu noonu la plupart am na ñu utiliser ay API am na ñu utiliser ay yenn détails. depuis que cloud mu ngi fournir ay solutions yoo xam te ni mën na permettre ñu def ay déploiement d'application par exemple. Mhm. mën na mu ngi fournir ay solutions yoo xam mën na def gestionnaire des codes sources. Mhm. mu ngi fournir ay solution yoo xam te mën mën na def ay chaînes d'intégration. donc cloud ci boppam actuellement mu ngi fournir ay mm-hmm. environnement yoo xam te ni mën na defar DevOps de manière simple mu lan la cloud day fournir ay environnement yoo xamante ni mën nañ fa def di DevOps de manière simple. ok je vois très clair c'est très cool du ma xuus bu baax ci cloud parce que ni la ko waxee rek après dinañ ci gën a xutaat peut-être yow moom sax ci boppam yaay yaay ñëwaat insha allah waxaat ñu ci cloud bi naka lay demee <laughs> oh outils ak tout ça insha allah d'accord alors insha allah dama benn souci alors beneen question bi aussi si à ku wax wàllum defar ay application ak organisation bi ci nekk yépp te mënuñ ko wax te waxuñu ci wàllu sécurité alors naka la hmm. su dugalee aspect sécurité ci doxalinam ok waaw waaw waaw loolu moom DevOps mu ngi ci def jéego. Mhm. parce que tamit bu ñu fàtte que ne nit DevOps. Mhm. des fois mu am ay problème de sécurité. sécurité yoo xamante ni des fois xam nga comme gestion de code source yi ñi nga xamante ni am nañ ay privilèges pour am fa accès. des fois attaquants yi dañ leen di attaqué hackers yi loolu da loolu loolu daf leen dal en plus de ça xam nga rapidité bi ñuy wax sànq ba tey ci DevOps. ci au niveau des CICD n'est-ce pas nit ñi bu ñuy développer seen solution CICD ak yooyu noonu ñoom dañuy dañuy yàkkamti rek defar li ñuy defar dem seen yoon ce qui fait yenn aspect sécurité des fois daaw ñu ko tenir en compte ce qui loolu des fois daf leen daan sonal ci lu bëri ci ay failles de sécurité amoon na tamit des fois outils yi ñu daan utiliser pour def bi DevOps dafay dafa doon am yu doon xam ne day am ay failles nga xam te ni yenn affaires yu confidentielles yi da doon am ay fuites ak tout sax mais cloud ci boppam nag. dafa def ay jéego yu bëree bëri bëri bëri nag ci sécurité yi ci li si njëkk mooy lan mooy mooy modèle traditionnel bi amoon nga xam te ni configuration manuelle nga doon def au niveau des serveurs et des dafa ñëw commencé ko changé indi des fois li ngay dégg ñaa ay infrastructure à a nga xamante ni da ngay ñëw mën nga mën mën nga def say configuration hmm. mën nga def say say say say say administration mën nga administrer ay serveur wala ay wala ay logiciel sans pour autant ou bien nga am accès ci serveur ko def comme sous forme de script quoi. ok je nga ce qui mhm. fait parce que xam nga nit ki buy def ay configuration manuelle man na juum. exactement mën na am ay jafe-jafe affaire bu mhm. bëree bëri tout ça ce qui fait que vu que def na ko loo xam te ni mën na nekk des choses yoo xam te ni mën nga ko def sans que ngay def ay configuration manuelle comme ça dina yombalal dina wàññi faille de sécurité yi doon am parce que imagine toi yo nga war a mhm. configurer benn aspect sécurité. nga di ko def manuellement nga fàtte ko ak répercussions yi day day day garaaw après waa waa kay waa kay day garaaw quoi. Mhm. boo booy imaginer nag bu fekkee nag n'est-ce pas yow jëloon nga sa temps nga defar nga nga def ko ak infrastructure as nga xam te ni liiraat nga ko benn yoon nga koy def jeex na donc ça va quoi. en plus de ça aussi en plus de ça aussi dafa fexe ba séparer les responsabilités. Mhm. loolu nag bu ma ko waxee mën na indi des fois benn inconvénient cest à mhm. dafa fexe ba. ki nga xam te moo nekk développeur. yam ci développeur am. ok ñi nga xam te ni ñoo nekk sécurité yam ci sécurité bi. ñi mhm. xam te ñoo nekk ay ñi déployé yam ci déploiement bi. kon di kon dina am ñu wax na non attendez kon lu tax ñu naan DevOps dafa ñëw pour fexe nit ñi di communiquer. si dañuy ba léegi quoi dama dama la jox benn exemple ci séparation yi mooy que développeur bi ci boppam mën na créer une politique de sécurité ki déclare par exemple ay privilèges quoi bu ko defee ba pare ki gère sécurité bi. mën na ko xool mu xool ba xam est-ce que waa ji li mu def baax na wala baaxul mu approuvé ko bu ko approuvé mu jox ko équipe bi nga xam te moo nekk opérationnel bi pour que moom mu gérer déploiement application bi xool ba xam mu ngi dox bu baax. fii fekk taa fi chaîne bi ba léegi mu ngi fi. bépp même chaîne bi moo fi nekk ba léegi si si. Mhm. moo fi nekk mais da gis que ni ku nekk. Mhm. day xool. ci domaine am lan la fa war a def mu def ko mhm. jox kenn mu valider ko waaw wala déet quoi mais ba léegi chaîne bi ak communication bi am na ci quoi tamit amaan na tamit waa te léegi ci sécurité aussi tamit da ngay gis que ni bu fekkee ñi développé ñi ñi def de l' intégration ak gis nañ que ni mhm. dafa am ay outils de sécurité bon gars yi dañoo intégré sécurité bu bëree bëri bëri bu ñuy def ay saay ay seet yi quoi. après da nga ci sax ay notion kaban. kenn détail mais yooyu bëgg ma si dugg quoi. mais mhm. dañoo intégré sécurité bu bëree bëree bëri ci saay si bi quoi. ce qui fait que tamit lool approche bu baax a baax aussi buñ def la en plus de ça aussi. da ngay dégg ñu naan la am na benn activité boo xam te am na ci sécurité bi bu ñuy def di DevOps ndax bu ñuy defar un projet de développement dangay gis A ba Z chaque fois day am ay critères ak ay règles de sécurité yu gars yi teg pour que nit ñi di ko respecter te loolu DevOps am na ay ay am na ay yu bëree bëri bëri yu ñu si wax quoi pour mujjee nag mooy automatiser processus de sécurité parce que mën nga am say say solution de sécurité nit ki di ko def. mais mën na fàtte ay yenn aspects yi mën na fàtte mais fekkee na automatisé nga xam te ni moom moo koy defal boppam directement aussi c' est bien. Mm-hmm. jum du ci am ce bon waa kay jum du ci am. de manière résumée loolu la. am na sécurité boo xam ne def nañ ko. bu bu xaw a am solo ci ci ci. alors je pense que je pense que loolu moo tax sax ñuy wax euh, DevSecOps des fois tu vois. waaw DevSecOps waa kay waa kay. Mhm. waa kay loolu waaw waa terme DevSecOps loolu loolu moo ko mooy fexe ba combiner DevOps ak la sécurité. exactement voilà c'est surtout ça quoi. ok mhm. encore une fois damay préciser waat ne euh, épisode bi nekkul pour euh, jàngale à la lettre naka la lépp di doxee mais dañuy joxe information bi dañuy joxe. porte yi euh, maanaam yoon yi de telle sorte que kenn ku ci nekk après mën na jël initiative am dem sur internet dem ci bibliothèque yi yokk xam-xamam ci domaine bi parce que peut-être mun na dégg ci li ñu wax nii ci épisode bi mu am lu ma indi ci boppam mu am xalaat bu mu indi ci boppam tu vois mu ne ah bàyyi ma dem jàngi la mooy DevOps tu vois bàyyi ma xool uti yi ak nu muy demee et tout ça suba nga xëy sa entreprise même bu fekkee amuñ ko nga euh, proposer leen ko pour gën a mën a euh, efficace liggéey bi donc loolu mooy objectif euh, épisode yi ak li ñuy def nii mais du amuñ vocation pour nekk dañuy joxe ay cours magistral wala dañuy joxe tout. waaw waaw c'est ça c'est ça en fait parce que DevOps dafa bëri théorie aussi ah. exactement y a trop de théorie sur sur DevOps. ay concepts. te te nekkul dañ ko paraphraser normaliser ko mu def nii. Mhm. ku nekk ak approche bi ci am. ku nekk ak approche am ak yenn détails aspect technique yi benn benn technologie rek mën nga ci mën nga mën nga ci focaliser wu. mën nga ci certifier da ngay gis ñu nekk ay waa Azure ñi nekk AWS ñi nekk ay Kubernetes. ñi nekk et cetera et cetera quoi. ci nekk ak outil yi nga gën a nekk à l'aise après la. Mhm. waa kay loolu loolu si alors ci ginnaaw boo xoolee euh, ci ginnaaw boo xoolee waxoon nañ euh, wax nañ lan mooy DevOps tu vois wax nañ aussi lan mooy avantage am tu vois je sais que aussi pour nga adapté ko ci benn entreprise foog mu am loo xamante ni moom lay laaj dañuy wax sax des fois que ne dafay laaj benn changement culturel maanaam nit ñi nit ñi xalaatee mhm. ak culture entreprise bi dañ ko war a changer parce que dañoo am ay équipe yu mhm. bëri maanaam équipe exploitation bi ñoom nga xamante ni ñoom di lañ gën a intéressé mooy stabiliser environnement yi ak produits yi ti vois développeurs yi ñoom boo xoolee ñoom dañuy def tout le temps ay changements tu vois def euh, yokk ay fonctionnalités bees testeurs yi ñoom aussi di minimiser risques yi à chaque fois alors pour que collaboration boobu noonu jaar yoon foog mu am lu mu laaj au niveau de l'entreprise donc Gora lan moo lan moo nekk prérequis yi nga xamante ni euh, maanaam naka la ñu war a mel pour mun a adapter approche DevOps ci biir entreprise bi. si presque sax tontu nga question bi ah te waxoon nga ko aussi <laughs> ah <laughs> comme li ñuy wax rek comme bu leen wax dafa am solo quoi parce que il faut nga implémenter ay affaires. pour nga mën a am statut DevOps bu baax ci entreprise bi si njëkk comme ni nga ko wax n'est-ce pas il faut qu'on gère l'aspect culturel aspect culturel bi nag c'est très simple mooy lan fexe ba nga impliquer équipe yëpp mhm. ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci projet dev ci projet bi quoi loolu aspect culturel boobu lu ci am solo la mooy fexe ba am une implication des équipes et toutes les parties prenantes quoi loolu il faut que ñu am ko deuxièmement ay outils yu baax a baax yoo xamante ni n'est-ce pas dina adapté wu. Mhm. ak projet bi nga bëgg a def. n'est-ce pas mënoo ñëw nga am sa benn projet. Mhm. bu baax nga ñëw di utiliser pro outils yoo xamante ni mënu la dimbali wala da lay indil ay problèmes yu bëree bëri bëri. Mhm, n'est-ce pas et deuxièmement aussi nag te troisièmement nag tamit il faut que ñu fexe ba il faut que nga fexe ba teg ay procédures teg ay processus yoo xamante ni. équipe yi liggéey yëpp ci entreprise bi dinañ ci méngoo te dinañ ci d'accord te dinañ ko comprendre ndax mooy gën a yombal seen communication ci seen biir mu gën a yombal entre-aide bi muy gën a yombal aussi flexibilité bi mm-hmm. loolu noonu la donc yooyu n'est-ce pas de manière générale mhm. il faut que nga jéem am ñetti il faut que nga jéem a am ñetti ñetti éléments yooyu noonu wala ñetti statu yooyu noonu sax pour nga mën a def une bonne implémentation DevOps ok sa entreprise ça marche ça c'est sûr mhm. important parce que en fait des fois da ngay gis ne même euh, da ngay nekk ci benn entreprise boo xam ne dañ naan bon ñun euh, équipe am équipe DevOps et tout ça on fait des outils automatisation et tout ça mais des fois da ngay mhm. gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir sax am na duñ comprendre comment marchent certains outils quoi naka la yenn outils di marché tu waa je souvien man premier année ma njëkk ñëw commencé naan damay def euh, euh, nekk ci benn équipe DevOps et tout ça. je pouvais même pas utiliser Jira mhm. xawma woon nan la Jira duñ doxee tu vois et malheureusement il y avait personne dans l'entreprise pour m'expliquer dañoo ñëw rek sànni ma ci affaire bi tu alors donc du coup je pense a cultiver bu fekkee ne sax tu es DevOps expert nga ci et tout ça mais ñuy revenir ci affaire yi di expliquer waat nit ñi euh, naka la entreprise bi war a doxee lan mooy outils yi ñuy utiliser pour lan la naka la affaire bi war a donc di expliquer euh, voilà di def ay formation sax yi pour mën a comprendre naka la affaire yi doxee ak outils yi ak yu demee noonu alors te ci loolu sax lay gën a euh, waxaat beneen affaire mooy que ne je pense que suñ entreprise sénégalais yi nekk Sénégal fii nii war nañoo jéem a xool mm-hmm. aussi ay possibilité pour que ñuy liggéey ci entreprise yi ñu leen di offrir ay formation pour yokk seeni compétence ci yenn domaines yi soit ci ay outils soit ci ay euh, yeneen yu munti doon wala yu demee doon quoi alors parce que loolu c'est très important parce que kii liggéey aussi bëgg na fi muy liggéeyee. Mm-hmm. du nekk di def benn tâche répétitive chaque fois mais bëgg na aussi. Mm-hmm. di évoluer en même temps ci entreprise bi di acquérir yeneen compétence yu bees de telle sorte que bés bu fa mm-hmm. jógee sax mën a euh, amaat chance pour se rebondir ci beneen façon boulot ak genre yu demee noonu quoi. et je pense que loolu c'est ça bon en fait genre moo lu am solo la lu am solo la bon mais mais heureusement sax léegi Sénégal. Euh, moo am na entreprise bëree bëri bëri te te maa ngi gis ay certifié yu bëri ñuy certifié moo man naa ci mooy man naa ci lim benn entreprise tudd comme Bione Appy nga xam te ni actuellement muy def jéego yu bëree bëree bëri ci wàllum cloud ak ci wàllum con containerisation yi ak tout ça macha allah di def ay yu bëri bëri pour jéem a monter en pour étudiants yi wala ñu fay liggéey monter en compétence yi détail bëri moo tax lu am solo la bon moo tax moo tax ngay def dafay am solo parce que nit ñu bëree bëri soxlawuñu mhm. nga leen di jàngal mhm. wan leen yoon bi rek quoi ñu dem jàngi ko quoi parce que fi mu toll nii genre genre podcast yi nii mhm. ñuy jéem a passer l'information parce que ndax mënuñu see jàngal kenn on passe juste les joxe ay ay ay aspects. Mhm. pour que nit ñi jéem a dem wuti ko. moo tax on te remercie encore une fois pour cette émission. ah non non man yéen lay remercier yéen lay remercier. alors a euh, euh, alors Gora a ana ana ana pain bi. déjà waaw ah, pain bi ah, ah, yow mel na ma ko fàtte de. non waaw instant moom. naa man daa mel ne ndox rek nga ma jox de ci invitation bi. ah ndox rek nga joxagum tax ma xaw a jaaxle tuuti nii. waaw ndox rek laa a de. alors pain baa ngi ñëw pain bi mu ngi ñëw pain baa ngi ñëw pain laa lay jox ak café incha <laughs> non mais je sais que yaa France actuellement mais dinaa fexe nga jot benn am benn mëkk incha allah dinaa fexe nga am benn mëkk wolof teg incha allah en France d'accord ok awul benn problème awul benn problème c'est un travail un alors ñu dem ci beneen euh, question bu am solo c'est-à-dire alors fi mu toll nii yan jumtukaay la DevOps bi di gën a utiliser pour réussir objectif am. Mm. c'est-à-dire xam naa ne am nay outils yu ci parti yu bëri maanaam comme ni nga ko waxee sànq ci gestion gestion gestion de projet bi mm. am nay outils yoo xam ne mooy permettre ñu mën a gérer code source yi ak outils yu permettre ñu def test d'intégration mm. donc yow ci sa expérience yan outils nga ñu mën a wax baaxee ko euh, ñiy déglu pour que ñu mun ci bàyyi xel mun a dem def recherche après pour euh, voilà teg jublu ci loolu. ok ok ok ok waaw waaw waaw loolu moom loo am solo la comme comme question te aussi ma fàttali ko rek lu lu important la waxoon. sànq ni fii ñu fi pour par exemple wax leen ni lii ngay def par exemple ñu ñu wan leen ay aspect pratique quoi wala ay aspect TP non non loolu mënuñu ko def ndax ce podcast la ñu def yenn aspect pratique yi mais comme ni nga waxee dafay baax des fois nga nga jox ay outils yoo xamante ni dina mën a permettre ki def DevOps mu dem teel see dem euh, gëstu pour xool na la koy mën a defee mais pour ma joxe outils yooyu nest mhm. il faut que ma waxal nest la plupart DevOps mhm. yiñ ci gis ok DevOps da ngay dégg ñu lay wax ay automatisation ci DevOps. Mhm. ok des da ngay wax da ngay dégg ñu naan la ay CI/CD mooy. Mhm. mooy intégration continue ak développement continu. Mhm. des fois da ngay dégg ñu naan la ay gestion de conteneur. des fois da la ko wax des fois da ngay dégg ñu naan la ay. ay orchestration moo yu garaaw yooyu noonu <laughs> waaw ay orchestration de conteneur automatisation waaw waaw ay automatisation de waa kay waaw waaw des fois ñu naan la ay monitoring tout ça donc ce qui fait que nest bon mën na mën naa baaxee ay quelques outils yoo xam te ni par exemple parce que yii yëpp ma lay wax DevOps la nekk dañ koy da nga koy def ci DevOps ce qui fait bu fekkee da nga bëgg mu surtout nag mooy ci mooy ci gestionnaire de ressources yi quoi moo pour wax ci ci li tudd gestionnaire de ressources yi nga xam te ni mooy permettre nga nga comme comme GitLab yi GitLab am na am na ay SDN am na ay ju bëree bëri am na quoi yooyu noonu mais bu fekkee nag da nga bëgg def ay automatisation yii moom gaa yu bëri xam nañ ko. ay ansible yooyu xam nañ ko gaa yi xam nañ waaw waaw waaw ansible moom yëpp xam nañ ko mhm. ak mook ak aussi ak Puppet nga xam te ne day permettre mhm. nga def la gestion des configurations Puppet P e T moo am na ñu koy woowee comme chef comme chef quoi boobu noonu bu mhm. fekkee nag outils yi ngay utiliser pour def ay intégration ak ay déploiement continu moo am na lu tudd Octopus déploiement boobu nga xamante ni bon grande entreprise yu bëree bëri ñu ngi koy utiliser NASA def koy utiliser Cisco da koy utiliser Microsoft aussi da koy utiliser muy tudd Octopus. OC euh, waaw OC T O P U S. ok deploy D plo e P L O Y. ok aussi yooyu tamit am na Jenkins Jenkins moom ñëpp xam nañ ko. waaw Jenkins moom waaw Jenkins am na aussi bon. Euh, comme li ñu doon wax ci cloud yi sànq comme par exemple waxoon naa la cloud fournir moom tamit ay services DevOps. moom tamit fournir na benn bu tudd Azure DevOps nga xam te day permettre benn outil de CI/CD la aussi Azure DevOps am na aussi bene outil bu tudd Bamboo. ok Bamboo comme comme bon comme Bamba ngay bind mais A bi ci di da nga nga defa ñaari o. ñaari o si si si boobu tamit ce qui fait que Jenkins Azure DevOps. Mhm. ak banaa sax laa waxoon. waaw ak Octopus aussi. Mhm. waa kay waa boo ak Travis ak Bamboo yooyu noonu dañ koy utiliser pour def di CI/CD. yooyu noonu bu fekkee nag da nga bëgg a def gestion des conteneurs fama docker gars yi xam nañ ko. waay waay docker <laughs> moom docker gars xam nañ ko. aussi amaat na aussi bu Linux bu ñuy tuddee LXC. LXC euh, damay fàtte lan la tudd sax Linux conteneur. Mm-hmm. ok waaw Linux conteneur moo LX moo LXC la quoi. moom tamit dañ koy utiliser pour faire la gestion des conteneurs et aussi bu fekkee ne da nga bëgg a def ay orchestration nga xam te ni mooy pour jéem a faciliter sa workflow yi nga xam te ni jéem koo gérer tout ça mën nga utiliser Kubernetes. Kubernetes am moo am na ñuy wax Kubernetes. tout ça. bon Red Hat moom nga xamante ni temps yi rek muy do mooroon na décédé woon na Red Hat waaw yaa ngi rey Red Hat ah Red Hat temps yi moo fi doon quoi aussi am na tamit waaw am na xam nga defa même ay fruit de mer am na aussi OpenShift ok OpenShift aussi bon ñu bëri koy utiliser aussi ah. ok bon aussi am na Cloud Foundry. si je ne me waaw Foundry. Mm-hmm. Foundry am na ak aussi ak Pivotal. ok ak Mesos am na bon yi ci des ah, waaw waaw waaw waaw mu am na xam nag outil hmm. yu bëri mënu ma woo xam. Ah quoi non yëpp da nga xam yëpp da nga xam si si gars yu bëri quoi non non. waaw loolu mais c'est juste rek quoi moo pour wax le li ci am solo mooy lan. Hmm. booy wër. Hmm. wëral outil yan ñooy permettre nga def automatisation. exactement outil yan ñooy permettre nga def gestion. de conteneur. outil yan ñooy permettre nga def orchestration de conteneur. ak yan outil ñooy permettre nga def. monitoring quoi nga xam li xew ak waaw mm-hmm. te boobu bon genre te boobu Grafana moom Grafana ñu bëri xam nañu ko waaye Grafana waaw waaw bon Grafana aussi bu baax la mm-hmm. waa kay Prometheus ak aussi ak ELK quoi mooy Elasticsearch mm-hmm. Logistical Kibana ok bon Kibana sànq moom laa doon wax quoi Kibana si Kibana waaw waaw waaw c'est c'est c'est donc da nga koy associé si bu ñu ne ELK moo nekk Elasticsearch Logstash ak Kibana Logstash ak Kibana waa kay mooy yooyu noonu c'est c'est c'est hyper important alors je vais je maa ngi doon noté li nga doon wax léegi je vais résumer rapidement outils yi nga xamante ni da koy soxla ci euh, booy def DevOps tu vois yi nga xam ne moom lañ gën a ràññee tu vois mënuñu xam yëpp nag tu vois mais d'après li ma li ma li góor a wax nii dañuy résumer rek déjà booy def outil euh, mooy outil de gestion de projet yi mën nañ ci am Jira wala mun nañ am aussi je pense Trello alors outil de gestion de code source yi am nañ Git wala SVN mooy ñaar yooyu lañ moo ci gën a moom lañu gën a ci biir Git yi Git am na GitHub moom Git lay utiliser am na git GitLab am na aussi Bitbucket tu vois alors ci outil d'intégration continue ak déploiement continu mën nañ am Jenkins am nañ GitLab CI am nañ Bamboo am nañ euh, Teamcity am nañ euh, je pense ah. aussi Travis am ah, na aussi ah, je pense que du AWS ak Google aussi proposé nañu ay outils CI/CD. waaw si si si si si aussi. voilà bon ils en tête quoi. waaw même man mii xamatuma ko en tête alors am na aussi conteneurs yi comme ni ko euh, Gora waxee am na Docker am na aussi Rocket ak Linux bi mu wax noonu tu vois. am na aussi euh, orchestreurs yi Kubernetes Mesos Docker Swarm ak yu demee noonu cloud. provider yi da ngay gis des fois mooy yi nga xamante ne mooy permettre nga def ay stockage à distance ak yu demee noonu am na Google euh, Cloud plateforme Azure AWS euh, am na aussi beneen kii outil bu am important aussi moo xam ne moo lay permettre c'est-à-dire boo amee ay euh, serveur yu bari su fekkee ne am na charge bi dafa daanu benn bi pour gere load balancing bi quoi c'est-à-dire. su serveur bi amee bii amee problème beneen bi mën a jël relais bi am na lu ñuy wax ay achat proxy tu waaw bon Citrix moo tax ma fàtte tur bi quoi mais mu mu muy ñëw sama bopp quoi. voilà tu vois tu vois am na aussi je pense ay outils d'automatisation yi mun ngeen utiliser Terraform pour provisioning infrastructure yi am na. Ansible am na Puppet am na Salt tu vois. voilà voilà ak ak ak outil monitoring yi nga wax léegi mooy alerte bi di def alerte yi am na Prometheus. Grafana waaw yi ak yooyu noonu. voilà ak yu demee noonu quoi am na aussi beneen outil bu am solo boo xamante ni moom euh, ma ngi ko nati woon depuis keroog mooy Volt Volt. Vault aussi si waaw Vault c'est-à-dire euh, et outil la pour permettre nga mën a gérer secret yi quoi et clé secret yi ak jumé noonu quoi tu am na aussi euh, bu ñu wax secret moom la utiliser avec euh, Kubernetes parce que booy def CI/CD des fois di nga am ay secret et clé secret yooyu garder ak jumé noonu tu vois tu peux utiliser ay outils suñu pour garder secret yi quoi alors je pense que outils yi nañ tu vois alors dem leen. bëri nañ quoi bëri nañ internet déjà li ñuy wax fii yëpp dinaa ko def ci description pas podcast bi mais mën ngeen dem après sur internet mm. gën a approfondir seen euh, connaissance yi pour euh, xam outils yi ku ci nekk aussi xam bu la intéressé nga def loolu quoi voilà. c'est ça euh, aussi tamit bu fekkee langage de programmation yi dama ci bañ a xuus. parce que mm-hmm. ku nekk ça dépend. am na ñoo xam te ni sont plutôt des Python ñoom ay Python lañ. bon am na ñoo xamante bon ay gars yoo xam ne waa Python lañ quoi. comme comme ay ñoom Elias. Elias moom Python la. waaw boo Tony si moom gis naa ko mu ngi ci Java bi. il est Java il est Java ak yooyu noonu macha allah mais mais sont des gars xam te ne on les suit quoi. ay ay ay ndaanaan lañ. si si si si li ñuy def quoi. mais nag bu fekkee nag ci hébergeurs yi quand même bon moo amul que ni yooyu rek ñoo am de parce que hébergeurs yi ci boppam mooy comme ay mm-hmm. GitHub yooyu. moo am mm-hmm. na ay GitHub. moo am na mm-hmm. ay source forge ak tout ça quoi. waaw waaw si si bëri na waaw parce que ci gestion des codes sources am yoo xam te ni sont centralisés. mooy KS mooy KSVN bi quoi. am na yoo xam te ni nag sont informations sont décentralisées. Mhm. mooy cas wala ay Mercurial ak yooyu noonu. quoi donc comme ni nga wax rek outils yu bëri na. nekk jéem a jéem a xool rek nu muy def. mais l'essentiel mooy lan nga mhm. xam. li nga bëgg a def. est-ce que automatisation nga bëgg def. est-ce que lu jëm ci outil CICD la. wala est-ce que lu jëm ci ay gestion conteneur wala et cetera yooyu boo ko xamee rek après boo demee def recherche ci ci yi nga war a utiliser rek di ci am lii quoi. alors pense que je pense que je pense que fi mu toll nii man ñu ngi waaj pare bi mais doylu ma dama bëggoon ñu continuer sax quoi tu vois li ngay expliqué li alors juste une dernière avant dernière question c'est-à-dire euh, lan ngay conseil ki nga xamante ni dafa bëgg nekk DevOps tey ak yan compétence la war a am exactement pour nekk DevOps. bon premièrement il faut il faut nga am bagage informatique. Mhm. bu baax en développement. Mhm. ak opération système développement bu ñuy wax mooy nga xaw a mën a coder nga du xaw a mën a coder sax nga mën a coder. mën a coder ça ne veut pas nga nekk ay geek mais nga nga comprendre rouage algorithmique ba pare ndax complexité yi à gérer yi. nga xam te ni de toute façon mënuñoo mokkal la mënuñoo jàng langage yëpp quoi. mais fexeel ba comprendre langage yi comment ça fonctionne. Mhm. nga xamante ni boo ci sëgg après di nga mën a comprendre na nga ci di donc amal bagage informatique en développement ak opération système mooy nga comprendre processus yi nan lay fonctionner ak yooyu noonu loolu premièrement la deuxièmement li nga doon wax am une capacité relationnelle si mooy culture bi ñu doon wax DevOps da ngay interagir ak ay équipes yu bëri da ngay interagir ak ñu bëri quoi ce qui fait que il faut nga am cette capacité la parce que parce que lu am solo la ak aussi compétence développement bi li tax mu am solo il faut nga am benn background ci langage de programmation yi parce que man mën na gis koo xam mën mën naa mën naa interagir koo xam ci Java lay job lay liggéey wala kuy kuy liggéey ci ci Azure wala kuy liggéey bon safala bu wala kuy liggéey ci ci ci ci Java wala kuy liggéey ci ci Rust ça ce qui fait que il faut nga am benn culture de langage boobu comprendre fonctionnement général du langage de programmation ni muy demee. en plus de ça nga am une capacité d' adaptation bu baax. ok parce que parce que boo amee une capacité d' adaptation bu baax mën nga travailler ci entité bu nekk tey mën nga nekk testeur tey mën nga nekk développeur tey mën nga nekk mën nga nekk ku gérer déploiement ak tout ça donc loolu noonu la quoi mais l' essentiel mooy lan il faut que nga am une expérience dans le développement par boo amee expérience ci développement rek développement su mën nga si génn quoi ak une bonne relation humaine. ok ça c'est sûr ça c'est sûr là je pense que clair na ci euh, ci bopp nit ñi alors juste avant ñuy pare bëggoon naa aussi euh, wax la ne la man aussi di la féliciter di la encourager ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def ci euh, communauté Telnet tu vois Telnet non Telnet wala Telenet la wala. waaw Telnet dañoo def contraction télécommunication ak networking net network comme réseau parce que on passait de la télécommunication ak réseau mais mais mais c'est plus que ça parce que c'est une communauté boo xamante ni bon c'est c'est c'est c'est simple on est juste là pour jéem a fexe ba information yi nga xamante ni ñu bëri amuñu ko ñu jéem leen ko jox yombal leen la ñu bëri xam nga sa genre gi bëri nañ fi mhm. ñoo xamante ni Mhm. ils ont hâte de partager leurs connaissances. Ouais, ça c'est sûr. ça c'est sûr saa nga wax leen ko soxlawuñ nga fay leen soxlawuñ nga def leen dara. bah oui ça c'est sûr boo leen invité woon si boobu pour ñu waxtaanale si dara mën nañu ko def. Mhm. on essaie de voir ces gens là ñu jéem a aider parce que man je suis sénégalais. Mhm. au Sénégal étudiant laa woon Sénégal. xam naa la xew Sénégal xam naa nooy def ba am stage da ngay sonn bay bëgg a dee ay détails yu bëree bëri bëri. ce qui fait que nag ñu jéem expliqué a expliquer yenn concepts yi pour ma gën leen a yombal seen intégration ci entreprise yi. Mhm. pour ñu jéem leen a permettre ñu gagner ñu ñu gagner une bonne carte d'adresse parce que moo xam leen ñu teel ko xam pour réussir il faut avoir une des bonnes relations. ça c'est sûr ça c'est relation cest nga xam élite. Mhm. il faut une bonne relation. Mhm. les relations fii ñi ngay fi gis yëpp ñu ci génn il faut avoir une bonne relation. loolu nag ñu bëree bëri dañ koy yàq xam quoi mais fexe leen ngeen am ay bonnes relations. bonne relation nag nekkul ngay ñëw bon di di forcé xam nit ki mais une bonne relation boo xam te dafa tegu ci ci ay bases yu claires ci connaissance. exactement exactement ci xam-xam. Mhm. ci yu bëree bëri quoi moo tax de ngeen ci li ngeen nekk ngeen évoluer nga xam te ni fii kenn mënu leen a tax ngeen yéen rek yéen a mën a yokk seen bopp kenn mënu leen a jàngal l'essentiel da ngay am gëm-gëm ñun ñëpp ay nit lañ. y' a pas y' a pas de génie dans ce monde ah. ça c' est sûr ça c' est sûr y' a pas de génie. ça c' est sûr kuy liggéey plus il faut toujours travailler quoi il faut. il faut toujours en tout cas man man te Elip te Elip mm-hmm. man je te remercie ah. ah non non man maa leen man maa leen bàyyi ma <laughs> non bàyyi ma remercier en fait parce que li tax bon man man man je le dis à chaque fois man je le dis à chaque fois des fois da ngay gis damay suñ communauté dañuy partager ce que mm-hmm. les gens font je sais que ce que vous faites c'est très difficile Elias benn jour wax naa ko c'est très difficile li ngeen di def toog jël sa temps tu le perds pour partager <laughs> pour partager connaissance fexe juste rek pour am kenn nit ku ci mën ku si mën a gis boppam c'est hyper important et c'est pas facile et des fois la plupart les gens duñ ko gisee noonu quoi dañuy mm-hmm, yaakaar que ni mm-hmm. on n'a pas de boulot mais mm-hmm. tout le monde travaille ku nekk am na looy def ça c'est sûr ça c'est sûr donc on n'a pas le temps mais c'est juste pour amour lañ koy defee quoi amour moo tax merci encore une fois sur ça sur l'innovation que chose qui est qui moo tax man chaque fois dama lay remercier yow ak Ousseynou bi nekk xarala. Mhm. exactement parce a ngi am yéen a ngi indi innovation yi extraordinaire ci domaine bi. waaw c'est sûr merci euh, mhm. bi ñëpp ñëpp quoi franchement. ok alors man bu baax di la jaajëfal di la remercier encore ci li nga accepté ñëw partager ak ñun sa xam-xam sa expérience. donc franchement merci beaucoup. mais aussi ñoo ngi lay encourager bu baax ci sa travail bi ngay def parce que man rafetlu naa ko trop ñun ñëpp ñoo bokk waar bi quoi ñun ñëpp ñoo bokk waar bi mm. à la fin de la journée li ñu bëgg mooy benn sénégalais à travers suñu voix wala à travers lu ñu def ñu am yokkute ci seen journée c'est-à-dire chaque jour rek tu dors moins bête quoi man loolu mooy sama objectif c'est-à-dire même bu fekkee da xamal benn nit benn xam-xam sax loolu c'est extraordinaire te je pense que jaamu yàlla la aussi tu vois le fait nga mën a transmettre xam-xam mhm. bi transmettre say xalaat transmettre say expérience parce que lépp sax du xam-xam tu vois lépp du ay xam-xam yuy jàng nii rek lu ci bëri des fois aussi expérience la te li nga wax moo koy maye am relation yu baax ak nit ñi am voilà euh, voilà am relation yu baax ak nit ñi moo koy moo koy may ñu nga xamante ngay mën a partager ak ñoo xamante ni yàgg nañ dund yàgg nañ am ay expérience ba nga xamante ni suñu rakk yi nga xamante ni ñu ngi suñ gannaaw am na ñun peut-être yenn erreur yoo xamante ni defoon nañ ko bugguñ ñoom ñu delluwaat ci tu vois alors donc du mm-hmm. coup loolu moo tax ñuy def li ñuy def te yow yaa ngi koy def man maa ngi koy def aussi Ousseynou mu ngi koy def keneen ak keneen ñu ngi koy def ku lim sax day juum parce que chaque jour damay. gis y en a beaucoup quand même je suis tellement content et Gérard et tout tu vois jour damaa nekkoon chez le dentiste di buddi sa waa ji buddi sama bañ bi fi ma toog tey sama téléphone laa gis euh, comment dirais-je laa gis euh, Jabastor directement mais fi ma toog sama bañ baa ngi métti ci laa ko <laughs> message ne ko il faut que ma invité la pour que ñu waxtaan ci affaire bi donc boo gisee mm. euh, lépp di avancer rek après yow da ngay kontaan quoi da ngay tu es tellement content que tu as mm-hmm. ko Gora lan moo nekk lan moo nekk s'il te lii bëgg naa ko jàllale avant tout. ay vas bëgg naa ko jàllale. vas-y y a énormément de gens yoo xam te ni je mhm. t'assure sont tellement disponibles. à chaque fois dama koy wax. Mhm. ci LinkedIn ay Ibrahima Mbodj. ñu bëree bëri. Mhm. message leen. man jàpp leen s'il te plaît xaw ma nag ba xam naa am ñu ko déglu quoi. mais n'hésitez pas. donc c'est juste ça. n'hésitez pas waaw incha allah incha allah incha man dinaa contacter gars yi comme ça ñu mën a ñëw ci vois. voilà partage seen expérience fii nii incha allah la moo nekk sa mot de la fin ñu pare si kii bi parce que tey moom épisode bi gudd na trop parce que c'était passionnant quoi. la <laughs> moo nekk sa mot de la fin waaw man dama xaw a bëri wax nag de. dama xaw a bëri wax non mais <laughs> épisode bee neex épisode bi moo neex te intéressant aussi parce que ñun. parce que je pense que ñun ñëpp ay DevOps lañ moo tax aussi wax ci yàgg quoi. <laughs> waaw waaw dafa mel ni dafa mel ni quoi. gis nga alors sa mot de la fin moo tax heureusement ba. Euh, di kontaan rek bu baax a mhm. baax. ci ci mhm. invitation bi te di la remercier te di wax du courage et bonne chance. Mm-hmm. te ñu ngi rafetlu bu baax a baax. Mm-hmm. sa sa sa sa liggéey. de mm-hmm. kontaan nañ ci et di remercier tout le monde. te di leen jéggalu nag n'est-ce pas. parce que du nekk xam-xam moo tax ñuy wax. nekk que ñuy am fit moo tax ñuy wax c'est juste. l'amour de pouvoir de vouloir partager. l'amour boo xam ne pour waxtaan la c'est juste ça la. mais nekkul une question de connaissance nekkul une question de savoir nekkul dara. donc di di leen remercier ci loolu lépp. allez alors les amis fii la ñuy yemale épisode tey bi di leen dox di daje ci beneen épisode boo xamante ni dinañ ko defaat ci semaine prochaine léegi mun ngeen ñu suivre aussi sur Twitter Facebook LinkedIn Instagram pour même information yi nga xamante ni ñu ngi koy partager foofu ngeen mun ko jot parce que dinañuy faral di partager foofu ay information alors ñu ngi euh, ci réseaux sociaux yëpp ah tu vois ñu ngi ci réseaux sociaux yëpp donc merci merci merci famille allez ciao merci beaucoup à la semaine prochaine ci podcast Wolof Tech ciao